thank you gis nañ ni yéen ñi nga xamante ni yéen a génnee euh, euh, euh, kii seen petit gàlle mm-hmm. bloc bi presque ñëpp ñi nga xamante ne ñoo seen petit gàlle di way. Mm-hmm. yi ñëpp bëggeel ngeen way yéen ñëpp seen i seen i single yu bari mbëggeel ngeen di waaye ba dañuy gis dañuy suggérer ni mën ngeen dem ba doo leen am carrière bu yàgg. Mm-hmm. parce que tout le temps mbëggal mbëggeel ngeen di waaye te dañ naan way bu digleewul nekkatul ay way ay mm-hmm. mm-hmm. gis nga ni mbëggeel tout le temps rek doo mën ci génne mbëggeel waaw waaw bëgg <laughs> dañuy faral daal di critiquer loolu ni euh, mën ngeen bañ am carrière <laughs> waaw parce que yéen ñëpp presque ñëpp mbëggeel ngeen di way bon mbëggeel la xale yu bëgg yow sa sinaw yi dama koy suivre soo ma bëggee la ngay sinaw n'est-ce pas. tontu <laughs> <laughs> ngi noonu. donc yow tey jii su ma doon woy di la di la di la yàdd doo ko sinaw. mais tey jii loolu ci la bokk. Mm. parce que mais pas nga abusé pas nga abusé parce que fanu musique loolu tamit ci la bokk mbëggeel dafa neex nga woy ko dafa neex. mais bi loo génne rek ni bëgg naa la bëgg. mais bon mais bon dam nii dafa bëgg xol. loof <laughs> di dund loof nii normal. mais bon il est kii la bëggal de kii. Hmm? mais tey jii mënul ñàkk ñoom ay thèmes yoo xamante ne dañ koy impliqué. <laughs> dañ koy impliqué après mais pour l' instant bàyyi la ci mbëgg. mais daanaka est ce yow li la xale yu jigéen ñi song bokk na ci ngëneel yi parce que ay fan si xale yu ah ah. euh, euh, bëri. xale yu jigéen ñi ngay waayal li la xale yu jigéen ñi bëgg parce que yow dan bu ñu ah. xoolee. ay ces vidéos bu duggee la majeure part des commentaires ce sont te du ñu wax parfois du ñu wax ci son bi waa dafa jantal booy bi dafa kii. est du loolu tamit ngay liggéeyal yow xale yi ah, jigéen ñi. maa ngi ñoom far. waaw ah, doo ne déet mm-hmm. ah, maa ngi ñoom far. Mm, mais bokk na ci li tax nga leen di woyal yow. ah waaw pourquoi pas. Mm-hmm. yow tey jii. non bul na man. bu ñoom yàlla dafa dogal <laughs> <laughs> dañoo am barke ci luñ dugg rek. bon mm-hmm. yàlla da ciy def xéwal. bon te tey ji bon man liñ ma bëgg benn maa ngi man samay partenaire dañ samay xarit lañ. d'accord ah, am nga la. Mhm. non yow loo bëgg defal man yow si sa carrière dañuy gis ni tout le temps carrière buzz. Euh, ay mhm. photo yoo xamante ne da ngay mhm. ànd ak nit. temps yi gis nañ yaag jé yaag jé daa bay la jé daa bay la. loolu nag yaay dama ko bëggoon indi ci fin bi parce que boobu boo ko indee heure bii nii nii. kon lañ day koo xam saay saay la saay saay la nekk bi ñu <laughs> biisu mu wax ci rek kon dugg nga ci wax rek wax lu tax lu tax ci la bon mooy problème euh, jeune mhm. nga nekk xale euh, mhm. sa carrière nekk sa kanam mhm. war nga mën a def standby tey boo amee bu dee tournage la sax mu bañ war a mën a nekk photo yoo xam day génn bokk ci ñuy wax naan tournage ah <laughs> donc je pense dama joxe exemple. bul may booy mu jaaree foofu naan la tournage c'est ça qui me fait mal en fait <laughs> léegi yooyu lan la bon comme ni nga ko gisee rek tournage la xam ma damay suivre te man bon. maa ngi suivre fekk live ah. waaw mi ngi noonu. waaw mais mais partie boobu gisuma ko ci série bi de. waa waaw génnagul. mi ngi vidéo je pense bien am na ñu koy suivre. man des milliers de personnes bëgguma tudd application boobu pour ne pas la publicité. <laughs> mais maa ngi xool foofu mais séquence boobu gisaguma ko de yéen séquence boobu da koo dagg de duggul ci film bi de. non ah mi ngi ci mi ngi ci. bi ngay côté boobu ci oto bi doon. di ko di ko bisu ko <laughs> di ko baal tooñ. <laughs> mais mais mais euh, loolu fuité naa. bon man euh, jéem ma cherche créer buzz. Mhm. parce que yaakaar naa man moom lépp luy ñëw rek dafay ñëw ci man naturellement du ma mhm. forcer dara. Mhm. man noonu laay dundee. Mm-hmm. en tout cas képp koo xamante ni genre nit da ngay bañ ñu lay fekk ci gaalu xaj nga ci lekk. Mm-hmm. man noonu laay dundee. Mm-hmm. bon du ma def nag luy blessé kenn wala luy gaañ kenn. parce que bon taaliba Cheikh Ibrahima. barki Serigne Touba noonu laay dundee. peut-être tamit weex dungu am. mais xam nga nga nekk xale euh, euh, mine de rien jeune nga. Mm-hmm. Mm-hmm. booy nga bu nekk ci musique yàlla daf la teel a may tur. Mm-hmm. Euh, sa yaay bu bokk nga ci xaritam yi. ñu lay dégg ci yenn détails yu ni mel bu mujjee gën a récemment moom yaa naa Baldé bi. naka la dundee loolu ak la famille parce que duñ comprendre ne ne série la la majeure partie ñi ko xamul wala ñi suuru série ci séquence yi à travers vidéo. duñu ko bàyyi xel mais naka la ñuy dundee moment yooyu noonu exactement. bon loolu ce n'est parce que genre c' est quelque chose kat booy bu ndaw nga gis ko muy kott xale bu jigéen ci biir oto. non mais yow yaa ngi seetaan invité lu gën a garaaw. <laughs> waaye yow bu ma dugal bu ma dugal bu ma continuer rek génnal foofu génnal foofu génnal foofu. yow léegi ah n' est ce pas xam nga ah. loolu c' est pas aussi jaabul ba. non mais am na ñu xamul ne série la amul ñu xam ne série la. dëgg la mais loolu c' est pas aussi jaabul ba muy touché keneen. n' est ce ah, pas kottante nii ci biir oto. amul amul sax teg loxo far. ah waaw yow noo def ba kott ko nag ko kott ay tànk. en tout cas juste série la série la. <laughs> dan dan ngay liggéeyal am nga label wala tu tu travailles en solo. bon maa ngi liggéey euh, en solo. Mhm. avec euh, euh, les partenaires yi nga xamante ni tey jii. Mhm. dañoo am lu ñuy impliqué ci sama musique. Mhm. ñooñu daal di koy ak ñoom contrat. bon ñoom ñi ngi impliqué lu bëri ci sama carrière parce que euh, fa laa sama son yu ma génne. Mhm. déjà le clip euh, Zizar moo ko def. Mhm. Euh, maa ngi nuyu de passage. ah il fait du bon boulot franchement. ñoom Chérifou Diop Sabrine Ahmada toute l' équipe de Rocktem Music. ñu ngi jàpp ci affaire bu baax a baax. di ci affaire yi baax a baax. mais amul benn label bu la contacter pour pouvoir travailler avec toi. bon je peux dire que ñi lay ñi lay ñi lay demander duñu xaat duñu jeex. mais tey jii yaay xool loo xamante ni ëllëg genre doo am doo ci am lu la metti mm-hmm. di nga ci mën a liggéey ci ay no parce tamit doo doo ne damay damay dem liggéey ak koo xamante ni turam jug na wala soit nga dem si nii neex-neex bi début bi. Mm-hmm. après nga dem ba ci biir ay problème day am forcément. Mm-hmm. parce que yow genre dug dugg si bi da nga see duggoon pour siiw nangam ak nangam séntu woo ci leneen moom tey jii bi ngay dugg ci moom. def na ay arrangement am lu ko arrangé. yow boo ñëwee waxooloo arrangé. parce d'accord ay suba teel nii wala presse am ñoom ñaar amul kenn ku lu ci contacté. non déedéet jéeri ngoone. non déedéet non déedéet. sa bopp yow kon yow ku la contacté yow. <laughs> non bëri na bëri na je vais pas dire les du ma wax euh, du ma citer tur quoi. Mhm. personnes connues yoo xamante ne nit ñi da leen. non mais vas-y c'est pas ah. <laughs> bëri nañ quoi duñ xaar duñ jeex. Ah, mais bon ñi nekk sama ginnaaw nag bon sama ay euh, papa yoo xamante ni. bi jàppee ba léegi ñu lu ma nekk rek suba ma ngoon ñu ngi ci. Mhm. franchement. Mhm. ñoom ñoo nekk am nga staff bu dëgër bu lay accompagner. am naa staff bu am naa fan base sama euh, fan sa club bi maa leen di bëgg bu baax Momo Sarr mooy dirigeant bi. Mhm. maa ngi gérer. manager yéen yi doo leen bëgg manager de yéen. ah yéen artistes yu ndaw yi yi mais âge bi nga toll quoi je veux dire. bañ a bëgg manager mooy am nga naa manager. kan mooy sa manager il s'appelle Moustapha Diop. Moustapha Diop. Mhm. kooku de sama tur sama sant yow. Eh, ah <laughs> kon je suis ton manager comme <laughs> euh, euh, euh, mais daal. Uh-huh. xam naa moom dina sama yaay dina ci ñëw itam. Mm-hmm. dañu ni toll ci benn période boo xam ne période concurrence la ah. Mm-hmm. y Dan. Mm-hmm. y a Moustapha Nayel. je peux citer d'ici les filles y a Dieyna Baldé y a Dieyla a Awa Thiès y a yoo xam ne ngeen nekk ay jeunes ñoo ngi génn yéen a ngi nekk concurrence ne ba concurrent autant pour moi mhm. naka ngay def pour mën a intégrer ban système ngay mën a teg pour mën a intégrer pour nekk au devant de la scène réellement bon euh, li ngay mën a def lenn kese la mooy ju respect mhm. ak bañ a yàqamti mhm. ak euh, dugg ci loo xam voilà nga nga nga respecte sa liggéey séq ak ñëpp jàmm séq ak ñëpp jàmm man je pense que loolu mooy première base yoo xamante ni. Mhm. moom la ñu war am ñun artistes yu ndaw yi je pense mhm. yuy commencé voilà. non artiste bu ndaw amul mais yéen ñu tolloon niveau ci instant bi ci âge quoi. Ah, ah. ñun ñun dese nañu lu bëri de. ah. amee du ma changé. waaw ah, bul changé ñoom tamit buñ changé. parce que yaa ngi baax. mais nuyu ko nuyu ko nuyu ko. nuyu ko leen. nuyu ko. big love. kenn ah. nu mu tudd noo ko tuddee euh, lan nga ko tuddee sa téléphone sa téléphone noo boobu ni ci turam. lan ah. la tudd. <laughs> yéen ah. <laughs> man maa ngi si. ah yaa ngi ci fan waaw léegi d' accord ñun léegi waaw si ta copine nan nga nan ban turam nan nga bindoo ci sa téléphone. bon man amagu ma copine. ah tu es célibataire bul tax lii bul tax gars yi def sa Instagram amoon na leen. mooy lii de maa li ko rek nuyu ko rek ni ko man lay nuyu. man sama yaay mooy sa copine quoi. mooy sama copine moom nga loof quoi. li <laughs> eh, merci beaucoup yow itam. Ah, ah.